lan mooy ndey yow nga ne ab sëriñ nga foo tool di nax Sénégalais di lekk seen xaalis yow nga ne man ngaa seet ah gis nga dan bàyyi caaxaan yi bàyyi naxante yi yaa ngi dégg man yàlla seede na ko su man na namee seetal ab nit gisul li ma ko wax ma bàyyi ñaam waaw seet bu leer naa ñi dama koy seet su mu la bal bala ngaa jox sa xaalis ma wax la li nekk ti yow waaw gis nga gars yi nan nan nan nan nan nan bàyyi naxaate yéen di def seen biir waaw la la woon woon dina waaw la amoon nguurub Macky Sall nguurub jomaay gi du si am waaw sëriñ yu bari nak suñ sañoon jomaay du jël réew mi waaw loolu tax ñu su bari dañ ko doon xeex ndax xam ne sun suñ ko sun suñ ko jëlee euh, seen bëgg-bëgg duñ ko am nak nekkuñu ci lu du dëgg te ay tappal la nekk ndax ñi fi nekkul nekkuñu woon ci dëgg kon ñoom ñoom c'est même chose waaw nan bàyyi naxan tey te ñuy bàyyi xaas jàmbur yu jël di koy bloqué dénoncé bari nan lool lool lool ti man fii ba Europe bari na ko waaw te bari nañ ñu mu si sib ñoo xam ne ràññee naa leen waaw nan defaraat seen toog seen tooguwaay waaw nga ne ma yaa may laaj ci wàllum wërsëg ci wàllum wërsëg ni mu doxee yaatu na lool te wërsëg dafa am solo lool te nit waaw ndax nit su ubbeekuwul rek maanaam ay mbiram mën naa bañ a dox wërsëg nag bokk na ci li nga xam ne maam da kay dàq waaw mii ma ne ngay mat sa sa loxo wala ngay mat say we loolu boo ko nga xam ne day day day yàq day day day day tëj day tëj day tëj buntu wala ngay tëdd di jëlëb sa sa lal boo boo ko ne la nga xam ne day day tëj day tëj wërsëg wala sa kër am ay lënd yooyu nga bàyyi ko fa loolu moo gën a gaaw moo gën a bon ci la nga xam ne maam bokk na li tëj nit waaw loolu na yor na si ay cangaay yoo xam ne benn benn benn sunguf bu naan sungufu ndimbali yaa ngi koy booleeg waaqixa ak faatixa jaxsoo indi yaakaar ak xasum xay te misaara xam naa ubbeeku yi ñu ciy joxe yëpp sax suñ doon nekk fii dëggalee ba suba du jeex waaye te misaara yi nga xam ne maam ñi ngi koy faral di joxe te ubbeeku am na solo lool incha allah bi képp koo xam ne rek maam jot nga ci cangaa yooyu danga ubbeeku ba mu jaaxal la ndax sama magum jare-jare daa dama ko wax liggéey du dox nit mooy dox yow jëmm rek soo doxee say mbir dana dox te jamono ji moo tool nekk moo xam ci loolu man di yëngu te ubbeeku woo maam say mbir na nga ko bëggee man nga kaa bañ amee noonu ndax ubbeeku mooy nit liggéey du dox nit mooy dox yow sa jëmm soo doxee rek say mbir mën naa sotti waaw kon yooyu ngi bàyyi si ngi bàyyi si xel bu baax a baax waaw te nga xam ne ñaan yàlla lu am la lu wér la la fi mag ñi nekkoon la fi mag ñi bàyyi woon ba nga ni mi ngi fi waaw léegi nag am na ñoo xam ne ñu ngi siy dugal seen loxo te te ñu ko see dugal am na ñoo xam ne ñu ngi koy yàq waaw wasalaam Abonnez-vous, Sénégal. Abonnez-vous, ciao Sénégal.